adduna si na ngeen xam ne lu gàtt la ku ci nekk loo defee ne defe ne da nga fi yàgg doo fi yàgg ndax li lii àdduna da ngay man boo doxee ba mënatoo nekkatoo àdduna boo xam ne dañ lay yëkkatee ko tëral day mel ni génn nga àdduna foofee rek fa la nit yem la ci des na lum mu gudd gudd du amal kenn njariñ du amal boppam njariñ ndax du mën a jaamu yàlla kon fawu ci ñàkk njariñ ba kera ba muy faatu rek leen loolee ko xa xalaat doo dugg ci lenn li ci des nan ko ba